bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalib yi teewlu istixaama point org ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di yëccati ziyaar bi nag Cheikh Sidil Muxtaar ñoo ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér mook mbooleem njaboot ak borom tubaak yépp mbokk yi nag ñu ngi leen di indil liggéey bu mag boo xamante ni bii ñu ngi ko amal ci ndigalal Cheikh Sidil Muxtaar eh, di teg forage gi nga xamante ne bi waawam maahu ñu ngi koy def ci dëkk bu sell bii Euh, di seen ñeenteelu forage nag ñu koy amal fii ci dëkk bu sell bi ci Touba ngir yokk ndoxam tuubaa ndigal li nga xamante ne bi tamit Cheikh Sidil tax jox na ko Serigne Cheikh Aliou ñu ngi ñaan suñu borom gën koo kàttanal ba lépp lu mu ci yéene suñu borom defal ko ci lu kawe njortam. Euh, ci biir ubbiteeg forage bi nag kilifa yu bari teew nañ fi ñu ràññi ci Serigne Cheikh Baralaat ak euh, kilifa yi nga xamante ne bii ñoo ne ci dëkk bi euh, muy ndawal buur yi ak ñëpp ñi nga xamante ne bii dëkk bi soxal leen ak yokkuteg dëkk bi soxal na leen teew nañ ci inauguration bi nga xamante ne bii ñu ngi koy amal fii ci Madiana euh, ci ñenteelu forage bi nga xamante ne bii Maawu Rahmati mi ngi koy samp fii ci dëkk bu sell bi di Touba waaye tamit ràññee ci njabootu Serigne Chouaïbou bu yëpp. Euh, ku mel Serigne Abo Mbacke bokk ci njaboot ak euh, Serigne bu ku ne xam na ne buñ tuddee Madiana xel yëpp dem ci Serigne Souhaïbou kon bokk yi dañuy ànd ak yéen ci ubbite forage gi nga xamante ni bii waa Maawu Rahmati ñi ngi koy def ci njiital Serigne Cheikh Aliou ñi ngi koy doolee ñaanal suñu borom kàttanal ko ba lépp lu mu yéene ci ndoxam Touba suñu borom defal ko ci lu kawe njortam kon bokk yi teewlu istixaama dañuy ànd ak yéen ci ubbiteeg forage googu. bi zanni sant yàlla bu baax tey julli ci yonent bi di yeesal sunu jaayante ak sant ku ñuy sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam ci turu waa maa u ki nga xamee ni jëf ju ju màgg ji yàlla jaarale seen loxo moo tax tey ñu teew fii ñuy sàkku ci mbooloo mi nag ginnaaw waxtu wi xat na lool te yitte yéeteem bari na te waxtu nawet lañu nekk ginnaaw bu ñu leen santee ci teewaay bi ñu yokk ànd akuk dal ba li nga xamee ni moo ñu fi andi ñu man koo defee ni nga xamee ni si noonu lañu ko bëggee te mu dëppoo ak ngërëmul sëriñ bi ndax waxtaan ñaare bu làngee ak kenn ku nekk di wax sa moroom déglul dafay xawa a doy waar bu ko defee sunu mbokki njaañeen ak jengeen yi nga xame ni ñoo féete woo ci wàllu yi niy naanatem ñu gën cee ànd koog dal rek euh, ba liggéey bi ni ñu ko bëggee mu mën a amee noonu ñuy sant yàlla bu baax nag ni ñu ko waxee di sant Serigne Touba tey yeesalaat salaat sunu jaayante ak nuyoo ci Serigne Touba Serigne Sidi Muxtaar xalifa général kulu murit mi nga xamee ni tey lii lépp moom la ñuy ñaan yàlla may ko fan wu gudd lool wu ànd ak yaram ba waajuram yu sell ya ak magam ju sell ja lépp lu ñu yéene woon ci dëkk bi mu man koo mottali du jar sax xam naa ñu leen di waxati maa u ndax yaakaar naa ni ñépp xam nañu ni ndigalul Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké la yaakaar naa doomu aadama yépp xam nañu ni ndigal lu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Amin Baara yeesalan la waaye ñépp xam nañoo tem ni ndigal lu Serigne Touba Serigne Sidi Muxtaar Mbacké yeesal la def ci xalam ak xalaatam ak alalam ak léppam teg ca booba Serigne Cheikh Aliou Mbacké mu ànd ak Serigne Moustapha Moussa ànd ak Serigne Malick Badiane ànd ak mboolem équipe bépp ak njabootu Serigne Touba gi di liggéeyal Serigne Touba ci wàllu ndoxum Touba waaye mbokk yi bala ñoo dugg ci waxtaan wi ak présentation bi xam ngeen ni fan yii ñu génn maa u rahmati dafa ñàkk jàmbaari xare taalibeb Sëriñ Tuubaa boo xamee ni musta tangam lu maa u rahmati benn yoon yitteem guddi ak bëccëg mu defoon ko ci ànd ak maa u rahmati ci liggéey bii nga xamante ci Sëriñ Tuubaa moo ko jox Sëriñ Cheikh Aliou Mbacké muy ndoxum Tuubaa muy sunu waajur sunu sëriñ alxaaji sëriñ Gueye ñuy ñaan yàlla xaare ko àjjana te woyafal suuf ci kawam looloo waral sëriñ Cheikh Aliou ci turu waa maa u rahmati gépp ginnaaw bu ñu sargalee sëriñ alxaaji sëriñ Gueye ñaan yàlla woyafal suuf ci kawam sàmm ko ñuy ñaan nga joxe ñaan bala ñoo door liggéey bi ñu maase ñun ñépp ci xol yu sell yu ànd ak yéene ju mat akuk teewlu ñaanal jàmbaar jooju nga xamee ni si kenn la woon ci taalibey Serigne tubaa yi nga xamee ni bir nañu ni bu tasee ak Serigne Touba du rus mukk ndax yàgg naa liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi. kon Serigne Cheikh ñu jox la nga joxe ñaan ñun ñëpp ñu teewlu ñaan gu sëriñ bi wax ñu def ko ku ko mënul ni amiin ñu yéene see ñaanal alxaaji Serigne Gueye moomu nga xamee ni kenn la woon ci jàmbaar yi maaw rahmati. di kenn ci lampi Serigne Touba di koo xamee ni si aw turam yàgg naa jollee ci ndajey maa u rahmat sëriñ bi mu ni na kenn ku ne jàng fatiha bu sel ak ñeen fukki lixlaas ak falaqi ak naasi ak ak salaatu ala nabi guwaay man yéene yool bi alxaaji sëriñ Gueye bu ñu noppee ñu jàng juróom-ñaari alam nasrah ñaanal Serigne Touba Serigne Sidi Muxtaar mu yàgg fi ba naalam yépp àgg te ñu ànd ko ak moom te lépp dëppoo ak ngërëmu Sëñ Touba kon ndigal laa ngi noonu nañ ñëpp jàng fatiha ñeen fukki lixlaas fallaxi ak naasi yi yéene alxaaji sëriñ Gueye yool bi bu ñu àggalee kenn ku nekk jàng juróom-ñaari alam nasrah ñaanal Serigne tubaa Serigne Sidi Muxtaar fan wu gudd lool waxand ak wér-gu-yaram ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko bismillah mu mel ni ki tey dañoo teew ci daloob ñeenteeri forage boo xamee ni waa maa u rahmati gi ma waxan léegi ci turu Serigne Cheikh Aliou Mbacké ci seenu njàmbaar ak seen relation bu yaatu ak juboo gu juboo ak doonu aadama yi ba lépp lu leen doomu aadama defal ci banque yi ñu wan leen fa ñu koy def ñu koy gis looloo waral tey ñu mën a am njàmbaarug taxawal ñeenteelu forage xam ngeen ni jëkkër nañoo taxawal ñaari forage muy Touba Ndigal ak Daaru Salaam Darma ànd ko ak taalibeb Serigne Touba muy Alhaaji Mandiaye Jong ginnaaw bi ñu taxawal ñetteelu forage muy bu Daaru Rahman ànd ko ak beneen taalibeb Serigne Touba muy Serigne Mbuub bii nag di ñeenteelu forage boo xamee ni waa Maa-u Rahma di seen njàmbaar ak seen relation ak teg gu ñu tegu ci yoon ba leen njabootu Serigne Touba gi defal ci compte yi ñu man leen a wan fa ñu ko def moo tax tey ñu koy taxawal tuddee ko Rahmatu Lahat muy ñeenteelu forage bi njabootu Serigne Touba gi nag teew. yaakaar naa bu ñu waxee soxna Astu Mbakke moom sëriñ Abdullahi borom dër bi tudd nañu mboolem njabootuk sëriñ Tuubaa gépp soxna si ñoo ngi lay sant bu baax di la nuyu di la gërëm di ziyaar waa Tuubaa gépp gis nañ sa taxawaay ci dëkkub sëriñ Tuubaa gi waaye nag rawatina waa maa u rahmati yow de xam nga ni waa maa u rahmati yow lañuy liggéeyal moo tax jamono bu nekk fu ñu geesoo gis la wolof nag dafay wax ni jëf lu baax amul amuli tànk waaye bëtt nay frontière ku nekk ca la war a nekk nag jërul ñu lay sant ñu ni ah yi jar naa sant ngir mu nekk soññi ñeel ñeneen soxna si jërëjëf sa maam ja Serigne Touba gis na sa taxawaay taalibey sëriñ Touba gis nañu sa taxawaay képp ku dëkk bi yitteel gis na sa taxawaay waaye ñu xamal la ni fegg ga sa taalibe di sa lépp soxna ami si la moom Serigne Touba Cheikh Souhaïbou Mbacké di jàmbaar joo xamee ni si moom itam li Serigne Touba bëgg ci dëkk bi rek moo ko yitteel ma ngi ci daayira yi ma ngi ci école yi ma ngi ci lépp loo xamee ci développement dëkk bi la. kon jërëjëf soxna si la ñoo ngi lay nuyu di la ziara tey ñaan yàlla mu mottali yéene yi ñuy sant bu baax nag Serigne Abo Mbacké moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Souhaïbou yaakaar naa bu fi teewee. njabootuk sëriñ bu Mbacké gépp teew na fi su fi teewee njabootuk sëriñ tubaa gépp teew na fi xam naa teew na fi ndax koñ bii ñuy defee yëf yi ci kilif teefam ak ceeb loxoom la ko teg waaye xam nañu ci moom ak bëgg sëriñ Touba akuk yaatu ak bëgg lu baax ak doyloo sëriñ tubaa ba bu ñu ko woowan ngir jëmmi sëriñ Touba beneen dëkk bu dul fii sax lu mu man di am dana ko def ngir teewe ko ndax Serigne Touba rek moo ko yitteel kon sëriñ Serigne Abo jërëjëf boo fi ñoo ngi lay jottali nuyoo ak ziyaara bu waa maa u rahmati bépp gis nañu ni waa maa u rahmati lépp lu ñu mës a taxawal rawatina ci gox bii yaa ciy jiitu la nga ca war a wax dinga ko wax na nga ca war a taxawoo di nga ko taxawoo te loolu képp moom la ñu bëgg kon jërëjëf alibe di ay murit di kuréel goo xamee ni si ndamul yoonu murit la ndax lu baax fu ñu ko taxawalee ndamul ñëpp la waaye nag bu fekkee ne ay taalibe Serigne Touba ñoo jóg taxawal kuréel guy liggéey ci wàllu ndox ñëw ba ci dëkkub Serigne tubaab bi di fi liggéey am partenariat bu rafet seen diggante ak Serigne Cheikh Aliou ba tey lii àgg yaakaar naa ñooñu war nañu leen a sant war nañu leen a gërëm ndax la ngay dàq kéwél mu jëm ci àll ba nga dàq ko mu jëm ci kër gi muy kuréel gii di SENTER nga xamante si ñoo yore liggéey bi Serigne Ibrahima Khalil Fall ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo ànd ak moom liggéey bi sëriñ Xaban Fall teewal ko fi ñoom ñi liggéey liggéey ba mag ñoom la ñuy jëkk woo ñu ñëw leeral liggéey bi kon sëriñ Xaban bismillah bismillah asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di leen sant di leen gërëm di jiital nuyu bi nuyoo bi ci suñu sëriñ sëriñ Sidi Muxtaar xalifa général de Mouride yàlla na fi yàgg ca wér di nuyu ñëpp ñoo xam ni kilifa diina lañu ca teew fi di nuyu autorités yi di sant yàlla bu baax nag di nuyu itam ki nga xam ni moo ñu joxoon liggéey bi muy sëriñ Cheikh Aliou Mbacké di sant yàlla nag bi liggéey bi egsee fii parce que boo koy xool liggéey bi forage bi depuis daaw la woon yàlla suñu borom def forage bi àggoon yàlla def ndog-ndog am ci forage bi ñu commencé waat ko ba yàlla def na forage bi mi ngi soog a pare liñ ci soxla woon lépp nag yàlla suñu borom sottil na ko parce que nekkoon na jamono yoo xam ni metti woon na trop mais ndaw dal ko sëñ Cheikh Aliou dal ak gunge gunge moo tax ñu ëgg si fii tey parce que forage bi daaw avant màggal gi lañ ko waroon a lañ ko waroon a réceptionné yàlla def ci lim ci def mais nag tey jii la ko yàlla suñu borom tuddal ba mu sotti alhamdulilah. maa ngi jiital nuyo bi nag ci suñu kilifa muy Khalil Ibrahima Fall muy directeur société bi directeur général des SENTER mi ngi mi ngi may yónnee nuyoo ci seex Aliou bu baax ci dal gi nga xam ni dal na ko depuis daaw ba ren sonaluñ ci lenn mu bàyyi ñu ci suñu dal bàyyi ñu ba ñu mën a liggéey forage bi ba mu àgg ci jàmm dafa waroon a ñëw. mais dafa am ndog-ndog moo tax ñëwul mu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax forage bi nag yàlla def na egg na ci jàmm bokk na ci forage yi nga xam ni moo gën a rëy ci Touba boo xoolee début bi nga xam ni am nañ ko macha allah fii ci Touba bariwu fii bokk na ci forage bi nga xam ni tam moo ëpp ndox ci Touba loolu nag ñi ngi koy sant yàlla. di ko gërëm bu baax a baax parce que bu fekkoon ni nun seq nañ ko keneen mën na am fii ñu ëgsi fii duñ fi ëgsi mais da nga ñëw bàyyi ni jël leen seen temps li la amoon solo rek mooy forage bi na baax moo tax ñu jël suñu temps liggéey ko ba mu àgg ci jàmm ñu ngi lay gërëm di la sant forage bi nag nekk na forage boo xam ni mi ngi xóotuwaay bi mi ngi toll ci fanweeri ñetti téeméeri mètre ak fanweer boo xoolee ndox mi nga xam ni moom lay génn fi mu toll nii egg na ci deux cent cinquante mètres cubes ko am fii ci Touba bariwul ni ngi sant yàlla di gërëm ñëpp nag di gërëm mbooleem ñu fi teew di gërëm mbooleem ñu fi teew di gërëm tam sama équipe bi nga xam ni ñoo fi nekk parce que bu du woon ñoom vraiment du ñu ëgsi fii may ñaan nag Cheikh yu nga ñaanal leen bu baax a baax a baax yàlla dolli leen wér dolli leen euh, vraiment xam-xam ba yéene bi ñu am ci Touba yàlla suñu ñu eggale ko nekk na ñoo xam ni dañ daan liggéey guddeeg bëccëg mosuñoo noppalu dara ñorul leen woon lu dul forage bi àgg moo tax nag bu ma dollee fii war naa ñaan yàlla suñu borom yàlla suñu boroom dolli leen kattan nga dolli leen ñaantam ba beneen yoon suñu yéene ci Touba luñ fi mën a war a def ñu defaat ko ci jàmm. jërë ngeen jëf. ñu nuyu kilifa yi fi teew yëpp di juttal ci nuyoo bi sunu kilifa yu tat yi fi teew te bu ñu tuddee soxna Assu Mbàkke moom sëriñ Abdullahi borom dër bi tudd nañ mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew di njabootu Seex Xaadim ñu ngi leen nuyu di leen siyaare bu baax di yëkkati suñu kàddu nag. ci turu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Souhaïbou moom mi nga xam ne barab bii ngeen ñëw tey baraba ma mu mel ne moom ci boppam moo fi waroon a teew dalal mbokk taalibe yépp ak kilifa yëpp kon kàddu bu ñu fi yëkkati ci ci ak kàddoom la waaye ci ndigalam la di nuyu it Serigne Bara moom mi nga xam ne moo fi teewal Cheikh Seydil Moukhtar yàlla na ko suñu boom yàggal te wéral ko te àggale mboolem ay naalam ci yow Seexul Xadim di nuyu kilifa yi fi teew yëpp te ñu ràññee ci monsieur le sous-préfet Serigne Mbacke Fall ak mbooleem kilifa yi mu yi mu àndal yëpp dañ teew jotaay bi di nuyu mbokki taalibe yi yëpp góor ñi ak jigéen ñi di nuyu nag Maa-ur-Rahma bi nga xam ne bis bi ñoo ko woote te Serigne moom Serigne Xaliil yu nekk ci bopp ba sëriñ Cheikh ñu ngi lay nuyu di la indi nuyoo sëriñ Cheikh waaye di la andil nuyu nuyu njabootu Serigne bi gépp di la woon mbégte ak xol bu sedd boo xam ne am nañ ko ci bépp liggéey boo xam ne yaa ngi koy liggéey ci Maa-u Rahma te lépp jëm ci Touba ci yaatal ndoxum Touba ak jàpp ndal ko ba taalibe bi yëpp man cee jote waaye di gën a di gën a seen mbégte ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def ngeen ko fii ci Madiyana dëgg la Touba ko tax a jóg waaye yàlla def na fii ci Madiyana fi ngeen ko samp mu war fay jógee tasaaroo ci Touba ak yépp feneen feneen fa ngeen ko mënoon a defee ci Touba yi day mel ne moom ngeen ko defal ndax Touba moom benn dëkk la benn boroom la am muy Serigne Touba taalibe yi fi nekk yépp njabootu Serigne Touba lañ kon fuñ fi defee. loo xam ne day dimbali taalibe yi ñoom ñëpp ñoom ñëpp lañ ko defal kon sëriñ Cheikh nee mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi rafetlu sa liggéey bu baax a baax ndax liggéey bii ba nga ko ba nga jotee ndigal ci sëriñ Saliou laata nga ci tàmbali dara ñëw nga ba ci moom laaj ko ci ndigal waxtaan ci ak moom lépp loo ci def it boobu ba léegi dara nekku ci kumpaam kon nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm. di ñaan ci darajee Sëriñ Tuubaa sunu borom dëgëral la yaa ngi nga ànd liggéey bi yépp ba fa ngeen bëgg mu àgg fa mu àgg fa yaakaar naa nag Tuubaa moom dëkk la boo xam ne liggéey bi Sëriñ Tuubaa yomb na lool ndax Sëriñ Tuubaa daf ko ñaan lépp li fi bëgg daf ko ñaan boroom moom te wax na it ne lam lam lam lam ñaan lépp noonu ma ko ñaane noonu la ko sunu borom sunu borom maye yaakaar naa tawféex la rek ab taalibe bokk ci njaboot yi nga xam ne ñaanu Sëriñ Tuubaa nangoo na nangoo ci ñoom te moom dafa wax ne li ko wuutale ak gaa yu baax yi ko jiiti woon ñoom dañ ñaan ñaan sunu borom sunu borom may leen moom nag sunu borom daf koy may ba noppi ne ko ñaan ma ngir ci ngir ngir teggin te ku yër foo Fawzayni nga xam ni ba mu sañcee dëkk bi lépp lu mu bëggoon ci dëkk bi bind na ko fa ñaan ko fa da nga xam ne lu ñu gisagul rek moo fi am waaye lépp lu ñu bëgg ci dëkk bi dana am rawatina nag ndox xam ngeen ndox dafa nekk lu am solo loo xam ne lislaam munta sell te ndox amul sëñ Tuubaa it xam ngeen ne bi mu nekk njaareem am na ci mag ñi fi nekkoon ku fi masoon a bàyyeekoo ñëw ñëw njaareem xam ngeen ne sëriñ bi ñi ko xam ñëpp xam nañ bëgg bu mu bëggoon Tuubaa ba ku masaan tudd turu Tuubaa ci wetam sax danga nemmeeku mbégteem ak xar kanamam bu leer bokk na ci li ko mag gi daan bégale mooy di tudd tuubaa ci wetam am na ci mag ñi koo xam ne bi mu dikkee sëriñ bi dafa doon laaj tuubaa ak nam deme mu koy wax mu koy wax ba naan ko Mbàkke xanaa day ña ñàkkum ndox ma rek de moo moo fa metti sëriñ bi ne ko ndox ma day jege na lool dama koy bañ a génne rek ñi jéggal ma pëli pëli nangu ko ci yéen ñu jéggal ma loolu mu ne ko dama koy bañ a génne rek pëli nangu ko ci yéen waaye ndox ma day jege na lool sëriñ bi da wax banaan ko tuubaa googu de sa law dana dana mas a dem ba mel na ndar wala mu dàq ko mu ne ko ah Mbàkke loolu de xanaa ku gàtt fan du ko fekke sëriñ bi ne ko ku gàtt fan de du fekke dara yàlla def na mag moom diir bu gàtt la am génn àddina loolu day wane rek sëriñ tuubaa lépp lu mu bëgg ci dëkk bi ñaan na ko te ñaan gi ci ëpp solo mooy la ma waxoon ne waccal ilahi maskani Touba abat mislas miha bi jaay xayr man habat Touba nag ku xam la muy tekki li muy li muy tekki da nga xam ne mooy lépp Touba mooy lépp lu lu nit di bëgg rek mooy Touba Touba mooy mooy loolu kon ñu xam ne tuubaa moom na ñaan yàlla rek te am pas-pas lépp luñ fa sumb tam jëm ci sëñ Touba ñu ñëpp ñu ànd ci jàpp ci taxaw ji liggéey bii nag liggéey bu am solo la ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di ñaan sunu borom sëriñ bi mm, yokk kàttan gi yokk xam-xam bi yokk man-man bi ba fa ngeen bëgg mu àgg fa mu àgg fa tey yaakaar naa euh, noonu rek lay mën a demee ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan ci daraje di ñaan ci daraje Sëñ Tuubaa e, liggéey bi ak fa ngeen ko bëggee te yaakaar naa yoon wi ngeen di jaar yoon wu ko gën a leer amul ndax kat sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom Cheikh Ahmadou Moussa dara wax ne nit ñi kat boo leen di laaj dee leen laaj ñu man waaye dee ko def fi ñu xam waaye dee leen ko leeral yaakaar naa doxeen bi nga xam ne sëriñ Cheikh mi ngi koy doxe ak mboolem ñu àndal génn loolu ndax mosuma dégg fenn ci seen i woote ñuy sas nit ñi loo xam ne mënuñu ko li ci ëpp li ci nit ñi def seenu jaayante lay doon mel na ne lu ñu laaj ba mu tegu seen loxo fañ koy def ñëpp ko xam te loolu lii firnde la ci leeral gi nag mooy lii ndax bu ko defoon bën noonu phrase bi rek doy na ñëpp xam ne phrase bënn na waaye bu ci boole waatee nag dajale mbokk yëpp dajale bi yëpp ngir leeral leen loolu yaakaar naa ne liggéey bu tegu ci yoon la kon na ko suñu borom barkeel yàlla na ko suñu boom dëgëral ba fa mu bëgg mu àgg fa yëpp mu àgg fa ñu ngi jéggulu kàddu yi ci kanamu suñu kilifa yi teew jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki taalibe yi sëriñ Cheikh Aliou Mbacké suñu sang tet yu tedd yi teewu fii tey ñu ngi leen di nuyu ci turu administration locale bu sous bu Ndaam ci turu gouverneur région ak turu préfet département Mbacké di jiital ci nuyoo boobu Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg te di nuyu sunu sëriñ suñu lépp di suñu waajur soxna Sugaan Mbacke ak Cheikh Barala Mbacke mi fi teewal Cheikh Sidil Mokhtar di ziare it képp koo xam ni kilifa nga bokk ci maaw rahmati nekk ci gannaaw sëriñ Cheikh Aliou Mbacke waa di ziare it kilifay dëkk bi ak ñu baax ñu bokk yu baax yi teew fii yépp di wax ne ñun dañu ñëw rek ngir jëmmal seede fekke ndax yàgg nañu fi organiser li ñuy wax màggal de Touba te ñëpp xam ni moment point pointe la boo xam ne nii dañ koy ànd ak waa hydraulique ci mbiru ndox mi ci li nit ñuy jëriñoo wante it bu dul màggal gi ñi nga ànd ak waa Mawarmati 24 heures 24 ak unité de maintenance de forage bi nekk Touba ñuy seetu ndox mi. kon seede bi ñuy seede ci biir liggéey boobu la di wax ni maw ci day gouvernement Sénégal mënu leen a fay ci li mu koy jàppale fii ci biir Touba parce que ku ne xam na ne état moo wara a yor li nga xamee ni mooy sécurité nit ñi wande li ñuy soxla ci wàllu ndox wàllu yoon wàllu courant état moo ko gàlloo te Touba demee na dëkk boo xamee ne nii progression dafa fulgurante ni muy demee gaaw na lool état bi def na ci effort yu bëree bëri waa hydraulique yi teew fii xam nañ ko façon bu nekk di solution jéem nañ ko fi tëral wante bi maw raxmat ci taxaw ak léegi gis nañ bu bëree bëree bëri lu mu jàppale état bi te loolu pëstéef ak farlu ak ngor moo ko man ndaxte kuñ jox liggéey boo xam ni dañ la doxum Touba daanaka lépp ci sa loxo la te jox ñu la budget boo xam dañ la ko voté ni la lii ngay doxee jox ñu la benn alal lu dul da war a takk sa digg am Pastef am man-man leen ak say mbokk di wër di lijjanti loo xam ne la doxal ndox moomu kon boo amee résultat yi tey war nañu sant war nañu la gërëm kon Serigne Cheikh Aliou Mbacké ak Serigne Moustapha Moustapha Moussa mi mu àndal avant mbokk ramati ñun de li ñu def mooy gàcce ngalaama liggéey ngeen lu wér loo xam ni ñëpp teg nañ ci seen i bët en l' espace bu mën naa ne de trois ans lu mat deux forages taxaw ngeen ko biir Touba di ko jiitu jarul ci dara bokkul ak réseau bi nga xamee ni ku ne xam na ni fu ne mi ngi fekk ci biir Touba daaw forage bi ngeen ko waxee ñu ñu ko doon xaar bien avant le magal de Touba mais ñoom liggéey nañ ci loo xam ne ni fekkoon ni du ay torof torof yu jëm ci problème technique avec l' entreprise. kon magal Tuubaa fekk ñu connecté foofu yàlla te li nga xam ne ni wér na te wér mooy forage bi incha allah bu yàlla bu ci benn ndox am mais bu doxee ni mu war a dox Madiyaana problème ndoxam dina deñ xayra problème ndoxam dina deñ te gis nañu daaw bi ñu defee forage bële daaw njëkk sa lay wax forage bu nga xam ne def ci Kër Gol waa Buxatul Mubaraka yi daan ñëw di jël ay camion waa gox waa sàmm ñaa am gën a gën a am jafe-jafe dox ñooñu tey yi seen jafe-jafe dañ na kon lépp loo xamee ni nii yaakaar nañ ko ci forage bi yal na ko suñu borom def tam benn dog ci barke sëriñ Touba mi yaakaar ñu ñëpp di wax ni ñun tam ànd nañ ak yéen taxaw insha allah ndigalu Cheikh Sidul Mokhtar Mbacke yéen a am ak taalibe ànd ak yar ak i teggin ànd ak maaw rahmati liggéey ci ndox mi di ñaan yàlla yàlla may ñu ci ndam may leen ko ci ba fi ngeen bëggal eggal na ko Tuubaa yàlla eggal ko fa ñu ngi leen di gërëm leen sant leen jërëjëfal jërë ngeen jëf wasalaam bàl leen yàq asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi fi teew laata ñuy yëkkati suñu kàddu dinañu ziar nuyu sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke xalif général des Mourides di ñaan yàlla na fi yàgg te wér ñu ngi ci toftalit benn bépp kilifa mbàkke mbàkke bu nekk fii ci Touba ñu leen di nuyu bu baax leen ziar préfet ñu ngi lay jéggalu ci kàddu bi ñu jël di fàttali rek ni li nga wax euh, yóbbaale nañu ci wax yi kon euh, am nañu mbégte tey teew fii ci dëkk bu sell bi di Touba ay jamono ci ginnaaw teewoon nañu fi teewal fi ministère hydraulique teewal fi également office des forages ci ay bés yoo xam ne Maawu Rahmati ñoom ñoo ko organisé woon organiser ko di leeral li nga xam ne ñoo loolu lañu liggéey bi leen sëriñ Saliou Mbacké joxe yan bi bëren kuy def loolu defe naa ne mesuré nga bu baax yen bu ñu la yen waaye bàyyi nga xel ñi nga xam ne ñooñu nga koy liggéeyal loolu am na solo torop beneen solo bi si mooy am na ku ko wax ci njëlbeen waxam mooy forage bii nga xam ne moom la ñuy tey mooy ñeenteeli forage yi boo xam ne Maaw Rahmati wax na ko fii ci Touba muy firnde lan di firnde tout simplement que lépp loo xam ne li sous-préfet wax sànq soxla askan bi nguur gi moo ko war a gàlloo mel na ni tey fii ci Touba soxla askan bi ci wàllu ndox Maawu Rahmati moo ko gàlloo lan moo tax ma wax ko mooy boo seetloo liggéey yi nga xam ne ay jumtuwaay la nguur gi li ko def ñaar ba ci ñett pàcc la am ut koppar yoo xam ne mooy tax ñu def ko lëkkaloo ak ñoo xam ne ñoo koy def ba pare saytu ko ñu gis tey ne ñetti pàcc yooyu yëpp Maawu Rahmati mi ngi ci ñeenti forage liggéey na ko fi boo ko xaymaa ci xaalis xaalis bu bëri la loolu mooy li nga xam ne xëy na feeñ nañu mën ci teg loxo mais li ci ëpp solo sax dinañu euh, jot bi duñu may ñu ñu yegg ci li si topp mooy bi ñu réaliser forage ba pare Maawu Rahmati ànd na ak ministère hydraulique ànd ak office des forages ruraux di saytu liggéey boobu nga xam ne liggéey nañu loolu également bokk na ci li nga xam ne Maawu mu koy def te mu nekk euh, loo xam ne nguur gi moo ko euh, gàlloo woon loolu lu muy wone muy wone rek ne Maawu Rahmati mi ngi ci tànku yi nga xam ne sëñ Saliou tegoon na leen ci sëñ Baara xarit sëñ Baara Mbàkke feddali ko sëñ Sidi Mokhtar feddali ko yemuñu ci def lool rek mais ñu ngi ànd ak ministère hydraulique ak service yi nga xam ne ñoo nekkal ministère hydraulique ci région de Diourbel particulièrement unité de maintenance de Touba en parfaite intelligence di doxal li nga xam ne moo dem ci wàllu ndox mi fii ci Touba collaboration boobu préfet wax na ko du ma ci dellu si collaboration bu exemplaire la kon tey mun nañu wax ne maaw rahmati en tout cas ci li nga xam ne ànd nañoo moom ci liggéey bi mi ngi ci tànk yi nga xam ne nguur gi loolu la loolu la tëral ci wàllu politique gu ndox ci euh, ci ci Sénégal mu ngi recherche ay financement mi ngi def ay travaux mi ngi saytu également infrastructure yi nga xam ne def nañ ko fi bi ñu waxtaanee ak ñun nañu ñun dey forage bi dañ ko fi bëggoon samp rahmatul ahad ñu laaj leen lu tax am na yeneen quartier yoo xam ne mbala yeneen gox yoo xam ne amaguñu ndox xëy na mun nañ fa def euh, forage mais dañ ñu indil xam-xam bu ñu teg ci li nga xam ne moom la ñuy dund ci ndoxu Touba ci lañ ñu ne ñun kat seetlu nañ ne at bu nekk quartier yu mel ni Xayra quartier yu mel ni Daaru Marnaan quartier yu mel ni euh, Madiana day am problème mu ndox ñu teg ci également que comme ñu ngi utiliser unité de dessalement bi unité de traitement d'eau bi nekk fii suñu defoon forage bi fii mu yokk quartier yooyu doole jox ndox unité de traitement d'eau bi yaakaar nañ ne dina mën a am solo parce que unité de traitement bi kat non seulement mu ngi indi ndox mu neex nit ñi di ko jëfandikoo te du leen indil ngaañ du leen indil problème mu santé mais gis nañ ne am na ñoo xam ne am nañ ci xëy mu ngi leen di indil koom ñu gis ne loolu ku am xalaat ak ku am gis-gis moo koy moo koy moo koy euh, teg ci ci ci taabu ñu ànd ci ak ñoom ci loolu biñ ci àndee ñoom ci loolu également ñu lëkkaloo ak entreprise bu ñuy wax Senterre Senterre aussi lii mooy ñenteeli forage boo xam ne euh, defal nañ ko Maawu Rahmati du ma dellu si ci résultat yi ñu am xabaan wax na ko donc ñoom aussi ñu gërëm leen ci seen xarala sant leen ci euh, également rafetlu bu baax compagnonnage bi ngeen am bi Maawu Rahmati am ak euh, Senteer kon su ko defee kàddu yi diisoon na ci man torop mais defe naa ne ci ndimbalu sëñ Touba am na lu ma ci jot a euh, jot a génne parce que suñu kilifa waxoon na ba pare ñu ngi ñaan sëñ Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg te asalaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu uh, yéen mbokki taalibe di mbokki jullit yi yéen ñëpp ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci sa tur ak sa sant uh, te di leen xamal ni bisub tey bii bis la boo xam ni mboolem nun taalibe yi nga xam dëkk Touba noo dëkk Touba nun ñëpp sant naanu cant gi nag daanaka ñu fi jëkk a jaar xam nañu cant gi ni mu demee te sant du weesu sant gannaaw ba loolu wee noo ngi sant sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke mi nga xam ne tey jii moo fi taxaw taxawaayu maamam Cheikh Ahmadou Bamba di sant Cheikh Aliou Mbàkke mii nga xam ni moom la woo booleenu ak moom ak sëñ Moustapha Moussa di sant soxna Astu Mbàkke mii nga xam ni mooy doomu Cheikh ak sëñ sëñ Abdourahmane Mbàkke borom dër bi te foo ko seen seen soxna waalo Mbàkke mu topp ci moom ak mboolem ñi nga xam ni ñii ñooy équipe bi ànd ak sëñ Cheikh Aliou muy Malick Bañaat ñoom ak mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ak sëñ Moustapha Moussa suñu kilifa. ginnaaw ba loolu wéyee maa ngi wax ci turu chef de village yi chef de village yëpp day maa ci gën a na gën cee ñàkk solo waaye sama borom dogal na wax gii may wax man lañ ko wax loo ah, maa ngi tudd Serigne Cheikh Ndiaye. di tudd sëñ Abdoulaye Jaxate ndax noonu jamono yi fi sëñ Jaxate nekkee nun noo moom noo ànd liggéey bi ba yàlla dogal di ko bi sa borom dogalee moom ci boppam muy liggéey ba kuy liggéey ku ne war ngaa ba mu wàccee ab liggéey wàcculub liggéey dafa nopp lu ndax sëriñ Saliou Mbacke daa wax ni taalibe du wàcc day soppi aw liggéeyin mu soppi aw liggéeyin nekk na ci yeneen liggéeyin kii ma tudd noonu sëñ Abdoulaye Jaxate remplacé ko ci liggéey noo sant bu baax noo ngi sant bu baax sant nag mënta weesu sant ndax noonu sëñ Sidi Muxtaar danoo defal loo xam ne sëñ Cheikh Aliou danoo defal loo xam ne lii lu jafe-jafe la ndax danoo woo ba mu ñëw mu woonu boole ak ki ñu liggéeyal ndax kuy liggéey ci Tuubaa gi tey jii sëriñ Tuubaa ngay liggéeyal kuy liggéeyal sëriñ Tuubaa tey jii sëñ Sidi Muxtaar moom ngay liggéeyal tey keroog ba muy waxtaan ak sëñ Sidi ñu jox ma baat bi may wax ak moom Cheikh Baara Laat mais man sëriñ bi ba mu waxee ba noppi moom la yebal mu tontu na nun nag suñuy wax du bari ndax sant la nu def sant nag képp koo xam ne ki yaa koy def jërul ngay bari looy wax nun chef du village yi nga xam ni noo nekk Touba nag noo ngi sant bu baax a baax sëriñ Cheikh Aliou di sant maa wax ma ci ndax xeebul kenn kenn ku ci ne waaxu na ñëw ba ci sa quartier lépp lu fay def itam dana la woo bëgg ñëw nga teewee ko ndax man dina nga ni daaw jéeg woo na ma sax xaw na maa gaan ko ndax booba day taw te damaa ragal taw ma dugg sama kër nekk saaf saal mu woo ma ne ko damaa nekk sëñ Saliou ndax di ko nëbbutu mu ne ma quartier bii ñu ne ci xaayira teew bu mag bii monte leen ko def di koo teew ma daal taal sama oto dem fekk fa keroog wallaahi asim ba ma ko séenee dara yii mu sol yu weex tàll la sol lépp day séet akom ndox moo sëñ Moustapha Moussa ñii ak Malick Badiane ñii ma xam ni kii lii ko liggéeyal maamam ji jaral sem nun ñi di ay taal ni ñoom ñooy ñun ñi ci war a tibb seen moom mii moo ko jaral lii ak seen taalibe yi ah dëkk bii nag moom ku dox mu dox ku doxul mu dox ndax bëri bu ñu teg ci bàttal ndax lépp loo xam ne lii lu fi borom mën ñaan la ñaan na ko fi ca xasida yi nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko ñu di ko wax guddi ak bëccëg ni mat dabul fa usey ni kenn ku ne xam ne lépp lu mu fi mën a mën a war a muslu muslu na ko fi ba lenn lu fiy dal nit wala lu fiy dal jinne wala lu fiy dal do fi ndax faansi nii kulli maa sa'altuka fi ansil xasidati moom la wax faansi nii min kulli maa sa'altuka minhu jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa kon nag fii doy naa yem nee na ñaanul dañuy jox ma jox ma ak may mën a bokkul faansi nii mooy yéen borom xam-xam yi xam ngeen mooy firi jox ma faansi nii mooy firi musal na muslu na lépp loo xam ne lii lay laaj fii ci Tuubaa ku ko fi bëgg a indi ci sa bopp yem laaj na fii ci Tuubaa lépp loo xam ne lu gën ci ku dëkk laaj na ko ci dégg ci jot fii ngay dund ba keroog nga fiy bàyyi ko dem àjjana bu soobee yàlla sallallahu alayhi wa noo ngi sant yàlla te di sant te di leen jégalu tey sant sëñ Cheikh Aliou nii te di leen xamal ni day noonu de ba nu sëñ booleeg moom nenu boole naa leen ak moom sëñ si di Muxtaar keroog ndigal la mu joxoon woowaatu ma ni ma banaal wala booleetu ma keneen lépp lu mu wax ko def lépp lu mu def danañ ko ba lépp jox ko ko mu digal ko ci liggéey bi ndax xam na ne lii sëñ Agro wax noonu sëñ Saliou daana ma ko wax man mii wax ak yéen ndax moom ma teg ci ko ñu boppam te ñu fekkee woon am na lu ñu ca am mooy dama daan wax ni lépp loo xam ne lii na leen laaj dañu man te di fa ñu xam ginnaaw bu loolu wéyee nga bàyyi leen ak seen alal bàyyi leen ak sab der sëñ Cheikh nag bàyyi na ñëpp ak seen alal ndax li muy sase bari léegi ku néew ne la lépp lu mu dégg itam toppatoo ko séeru ko laaju ko xoolu ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatu o asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy jël fii ci kanamu suñu kilifa yi euh, li nga xam ne moom la ñu wax rek ci ay kàddu bëri na ci loo xam ne ñi ma jiitu junj nañ ko moo di njariñ li nga xam ne moo tax ñu def forage bii ci barab bii quartier yooyu nga xam ne mooy xayra Madiana Daaru Marnaan bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne dañ koy am rawatina nag lii nga xam ne mooy màggal Serigne Cheikh xalaatoon ne dañuy def benn forage boo xam ne ci biir dëkk bi lañ koy def benn day jariñ biir dëkk bi waaye day jariñ ñi ci biti ci yan anam la leen di jariñee ñi ci biir dëkk bi am na tuyau boo xam ne installé woon nañ ko ba pare mu bàyyeekoo fii dem ba xayra dina dagg ci tuyau boo xam ne Madiana la jóge waaye nag dina am njariñ loo xam ne dina ko feeñ ci li nga xam ne mooy daaru mannaan ak li nga xam ne mooy daaru xudóos beneen njariñ li muy am ci gox yi nga xam ne dañoo sori rawatina te màggal mooy dañ daan jël ay camion citerne daan ko yóbbu lu mel ni xayra daan ko yóbbu daaru mannaan daan ko yóbbu daaru xudóos daan ko indi madiana te ku ne xam ne xat-xat yi nga xam ne moo daan am ci dëkk bi daan na rawee fii nga xam ne mooy gox boobu ma leen limal ndax dafa doon ci digg dëkk bi kon camion yooyu dañ daan déparé F8 mooy forage bi nekk yoonu Darou Moussi balaa ñoo yegg wala ñaari voyage sax duñ ko am guddi jot wala ñu wàcc te fekk na am na ay gox yoo xam ne ma nga ca gannaaw te amuñu tiwo te it amuñu ay camion kon bu sëriñ Cheikh li jëntee jafe-jafe boobu jaarale ko ay ci ay tiwoo nga xam ne ku nekk xayra wala ci gox yooyu boo tijjee sori na am ndox kon camion citerne yooyu day mujj jariñ ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen gox yooyu kon sëñ Cheikh Aliou gis-gisin boobu la amoon nga xam ne kenn du ne ne man branché wu ma ci teew bi moo tax jariñu ma déedéet bu yàlla defee mu am lu ñu bëgg rek ñëpp kon lay jariñ kon loolu moo doon sababu li tax ñu def fii forage bii ngir régler rek lépp loo xam ne moo nekk ci zone centre bi mooy li wër corniche bi yëpp bu màggal jotee rek benn camion citerne du fi jaar ndax day fekk ku ubbi sa robinet rek ak waxtu woo ko soxlaa rek amee ko noonu kon loolu mooy yitteem mooy sababu kon euh, lii nga xam ne def na ko fi lii ngeen gis it bëri na ñuy wax ne ana forage forage mooy teen bi nga xam ne mooy génne ndox mi leneen li ngeen di gis moom château d'eau la ab dencukaay la te bii mooy juróomeelu forage bu nekk Touba boo xam ne nii la mel amul château d'eau château mooy dencukaayu ndox bi kon ñépp xam nañ ne lii mooy forage ndax Kër Ñang la fa nekk amul château d'eau Bokkatul Mubaraka amul château d'eau Serigne bi nekk fii amul château kon loolu dencukaayu ndox la waaye nag lii moom mooy jëlee ndox mi ci forage bi nga xam ne ñetti téeméeri mètre ak ñaar fukk la xóotee di ko pompe di ko dugal ci tiwo yi muy dem ci gox yooyu ma leen limal yàlla def na nag ñi nga xam ne ñooy liggéeyal nag ñoom muy ministère de l'hydraulique te tey jii joox teewal leen fi rafetlu gi ñu rafetlu seen liggéey ba tiwo yi nga xam ne moom la ñu waxoon ne moom la ñuy jokkalee ci forage bi yàlla def na defar nañ ko ba noppi te loolu ba leen ko Serigne Cheikh Aliou waxee ne leen taxaw naa ci am forage ñoom it ñu ne taxaw nañ ci jàppale la ci tiwo yoo xam ne dinañ jokkale forage boobu ba mu lijjanti jafe-jafe yooyu nga xam ne am na ko ci gox yooyu kon ñu dox ci ay jéego yu ama am solo te ñu yàgg ànd ak ñoom ci loolu ci lépp loo xam ne ñoo koy def ndax maaw rahmati rek mënut a dem moom kese ñoom it mënuñoo dem moom kese yàlla dimbale ñu nag ñu àndandoo ci collaboration boo xam ne bu mucc ayib la moo tax ñuy am résultat yi nga xam ne euh, préfet wax na ko sànq kon ñi sëñ baa ngi leen di beral ak cant ci loolu ngeen xam ne ànd nga moom jàppale ko ci liggéey bi mi ngi leen ci sant di leen gërëm di fàttaliwaat nit ñi rek ne yitte ji nga xam ne war nañ koo am ci def ci li nga xam ne moo di dox mi ndax lii ngeen gis yi ci ko fi def bëggul sax ñu xam turam ouvrage boo xam ne ay nangami million la nga def ko ngir liggéey Sëriñ Tuuba soññe la nag barki démb rek sëñ Cheikh Aliou bi yëgal sëñ Sidi Mokhtar di ko wax bés bi nga xam ne moom lañ jàpp ngir taxawal forage bi da koo nuyu rek mu génn jox ko fukki million kon loolu it ay soññe la ak ay tegtal la ngir rek nit ñi war cee gën a mën a jàpp ndax état bi li mu war a def mu ngi ciy def wax dëgg yàlla maa wax mati li mu war a def kon nag na askan bi gestuwaat li nga xam ne moom moo leen war ci biir dëkk bi te di ko defe noonu ndax it yàgg nañoo wax maawu raxmati mooy jàppale leen maawu raxmati ngir mu mën leen a gën a jàppale ndax lépp lu ngeen dugal ci maawu raxmati rek day delluwaat ci askan wi kon ñu gàttal foofu ndax xat-xatu waxtu bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew yépp ci turu Cheikh Sidi Mokhtar di jiital ci nuyoo boobu Serigne nga xam ne kuréel gii moom la ko Serigne bi dénk ngir mu saytu ko ba mu am ci li mu bëgg di nuyu soxna Astu Mbàkke suñu wajur di ko jot li cantu sëriñ bi taxawaay bu rafet bi xam ne taxaw na ko ak soxna yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi ñu mel ni soxna Ami Sylla ak soxna Waalo bu ma limee daal damay juum waaye ñu yëpp ñoom jigéen ñi ni seen taxawaay ci liggéey eh, maawu rahmati bi sëriñ bi gis na ko waaye seen taxawaay ci liggéey beneen bu mu mën a doon bi gis na ko préfet bu baax di sàkku mu jot li mu nuyoo ci ay kilifa di fi di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo fi teewal euh, kii ni forage bi ak ak directeur hydraulique ñoom ñëpp itam ñu leen nuyu ndaw loo xam ne teew na fi daal ñoo ngi leen nuyu di nuyu Serigne Mao Sall ak Saliou Dieng ngir jox ko nuyoo chef du village yi yëpp di nuyu mboolem taalibe yi nga xam ne dañu fee daje di nuyu Serigne Moustapha Moussa di nuyu sëriñ Abo sama rakk di ko jot li nuyoo Cheikh Sidi Mokhtar ñu jàllale ko ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké suñu waajur di nuyu mboolem kilifa yi nga xam dañ fa di nuyu personnel bi nga xam ne ñoo ngaan pour nga xam ne buy neex buy naqari bu nit ñi dikkee bu ñu dikkul yëpp dañ koy téye te muñ ndax dafa naa ku ku ku xam comme li Mor Talla doon wax léegi ku xam maa wa rahmati xam ne traversé na fi guddi yoo xam ne Euh, am na ñu bari ñoo xam ne bu bu bu bu bu buñ leen waxoon ne maawu rahmati ngeen bokk ñu ne déedéet wala bu ñu dox ci bedd te bokk maawu rahmati sax mën naa wax dañu làqut waaye nag yàlla loolu lépp balaa muy balaa muy dijj da day sawrul njalbeen saa boo tàmbalee ak njalbeen mu neex lool xamal ne mu gëru neex soo tàmbalee njalbeen mu naqari xamal ne mu gëru neex loolu nag yaakaar naa ne yàgg nañ ci kon sëriñ Cheikh Abdou Serigne Sidi Muxtaar mi ngi lay nuyu ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi daje di la sant bu baax ci liggéey bu rafet bii nga xam ne yaa ngi koy liggéey te di ko ci taxaw defe naa place bi ñu taxaw sëriñ bi fas yéene mu nekk ab jàngukaay nga jël forage bënd ko ci biir mu wóor la ni ab jàngukaay dafay laaj ndox mu mat sëkk te jege te bu doon loo xam ne bu ñu defee jàngukaay ba pare di ko xëcc feneen akub jàngukaay ndox ma mu laaj ak liggéey ba ndox ma mu yaakaar naa ne sa maam ju tedd ji eh, wan na la ni nga ko war a liggéeyee te yoon woowu itam yaa ngi ci boobu sëriñ baa ngi la ci sant bu baax di la sant itam ci dénk gi mu la dénk te li mu la dénk comme ni ko moo taal faa waxee léegi mu neex la mu naqari la mu taw mu naaj mu guddi lépp yaa ngi ci te nekk gi jubloo ci dara lu liggéeyal sëriñ Touba te fi mu nekkat ku mu mën a doon ci noonu sëriñ Touba war laa jaral loolu ndax koo xam ne tey jii yaa ngi lekk di naan di am bànneex di di dawali wata yu rafet di dëkk ci say terrasse di def di doxe say soxlaa ko ñëw santal sëñ Touba te xam ne bu dul sëñ Touba loolu mënoo ko ndax am na ñeneen ñu fi nekk ñoo nga xam ne ñi de euh, bokku ci sëriñ Touba wala joxuñu sëriñ Touba seen bopp loolu de néew ma néew ma du du fu ñu toll dafa am waaye ñu ci ëpp balaa ñu koy am dinañu sonn te loolu li ma koy faral di wax ni képp koo xam ne ngaa jël sa bopp jox sëriñ Touba te sëñ Tuubaa di liggéeyal yonante bi ba yonante bi jox ko lépp boole ko sunu boroom sunu borom jox ko lépp ni ko jeexalu ma dara te maye te joxe dong laa koy doyee kookee képp ku wékku ci moom loo yóotu ci moom doxuma ko xolaatal sa bopp xam na ci yow la waaye du ci sëñ di sàkku itam comme ni ma ko waxee woon rek dañoo wax ni damaa dégg keroog waxoon naa ko ca émission ba ñu lim juróomi nit wax ni nangami milliards lañu yoon ñu ne ay milliardaires lañ te ci yoonu murid lañ bokk ñu ne ñooy ñëpp xaalis Sénégal kon kay xanaa ñëpp xaalis ci Sénégal bu ñu demee ab milliardaire kay war naa mën a bënn faras kon ñuy woo ñi nga xam ne ay jullit lañ waxuma sax ay murid ak naamam ñi nga xam ne ay jullit lañ day xam ne dañuy liggéeyal yàlla woo gi nag woo bëgg ñu am yiw la waaye fii moom buñ dikkee li fi war a am dina am buñ dikkut li bu fi kenn jógee nii dañoo demandé pour nit ñi ñëw di dimbale déedéet dañ leen di woo ngir yàlla ngir liggéeyal suñu borom ngir am yiw waaye fii moom ni ko Saliou jàng waxee léegi Sëriñ Tuubaa moom boo xoolee xasaay yi mu ci bind yëpp sax waxatul yàlla yàlla na ma may nangam ba mu tàmbali nangam yàlla na may nangam mais bu mujj bi defal ma nangam lay wax ndax boobu suñu borom xamal na ko loo wax ci ma def muy wax yàlla defal ma nangam defal ma nangam boo xoolee xasaay yi mujj yëpp loolu nga kon dëkk bii koo xam ne def nga ci sa warugar alhamdulilah koo xam ne defoo ci sa warugar ñu mel ni Serigne Cheikh mii Serigne bi tànn leen jël leen teg ci teg ci kanamu mbootaay yi ñu ànd ak ñoom di liggéey ñi ñu àndal itam doon nit ñu mat sëkk te mata ko te gëm Serigne Touba wóor nañu ni Serigne bi li mu bëgg ci dina ko am ndax ca yonante ba fiiru mu taxaw benn dëkk boo xam ne ka ko moom da koo gor. dem ba ci diggu àll fekku fa dara lul màndugum kese mu gor ko dëkk fa dafa jaamu yàlla di fa liggéey mu dagul ñaar téeméeri at dëkk ba toll nii amul fenn ci àdduna Sëriñ Tuubaa képp la yàlla may loolu kon li indi loolu daf lay wan ni dana indi leneen yàlla yàlla yàlla mi ko may lu mayul kenn da lo dana indi leneen ndaxte yàlla da koo defal loo xam ni moom la ko mas a defal te dootu ko defal keneen illa yaxaaru lahu ma lam yakun wala yakun abadan li mumkini lastu asukku abadan fi ni jaaral ba di ajiban fi kaw kon li jar sant yàlla ci sunu taxawaay bari na te itam képp ku jot ci am wër am wërsëg am gu wér ñu la liggéeyub sëñ Tuubaa nga am xol boo ca liggéey santal yàlla te xam ne yàlla sowe na ndax nit mën naa am xaalis ah, muy wërsëg du am xol bu ko joxe nit mën naa am wërsëg am xol bu ko joxe te doo gis ku la liggéeyloo kon nag boo amee wërsëg am xol bu ko joxe am gu wér gis ku la liggéeyloo te liggéey ba jëm ci Serigne Touba jëm ci doomi aadama yi war ngaa sant yàlla te sëñ bi dara na ni képp ku fi mucc tey ak ëllëg jaamu moo lay muccal te doomi aadama yi ndox jiituwu ca dara ndaxte boo ganee àdduna ndox mooy jiitu ci yaw boo nekkee ci biir àdduna ndox ngay jëfandikoo bés boo génnee àdduna ndox mooy mujj ci yow kon ndox lu nécessaire la loo nga xam ne mënut a ñàkk te set ci imaam la bokk te ko amul ndox munoo set te set mu ngi bokk ci imaam kon nag ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax te di leen encouragé ci lii ngeen nekk liggéeyal sëñ Tuubaa dong mooy li nga xam ne moo woon am na ñoo xam ne nag duñu liggéey duñ bàyyi nit ñi duñ bàyyi nit ñi ñu liggéey duñu liggéey du duñu bàyyi te ñoo ñoo fees del dëkk bi nag seen i wax dara jëw cee déglu nit ki moom bu wisee comme ni ñu wax ci seen Cheikh boo wisee fi nga jëm te fi nga jëm yaa ngi jàkkaarloog njariñ li te dégg kàddu yi ci sëñ Tuubaa bu la kenn mën a delloo ginnaaw ndax am na ñoo xam ne mucc ñu te duñ nangu ko mucc asalaamaaleykum wa rahmatulah rakim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah barki Cheikhul Xadim ñi ngi ñëw fii di wax alhamdulilah di wax alhamdulilah di wax alhamdulilah te di ñaan ñëpp ñu santale ñu yàlla buur tabaraka wa taala santale ñu Serigne Touba ki jagleel gi nga xam ne nii jagleel nañu ko lii taw féexal nañu ko bañ bokk ci di jël kàddu gi ci turu Serigne Cheikh moom Serigne Aliou wax na dëgg boo liggéeyee ba ñëpp gis sa liggéey ñi ngay àndal ñëpp kenn ku nekk li nekk ci yow nga def ko ci moom ba kenn ku nekk foo ci waxee nii Serigne Cheikh Bara Abdou Lahad waxee nii Mamadou Jox waxee nii sous-préfet waxee nii ba Badiane waxee bu ngeen gisee lépp luy complémentante ci biir la parce que ñoom ñëpp dañ ko acheminé ànd ànd ba nga xam ne moom la leen ànd ba liggéey bi agsi fii kon sëriñ bi nee ci ndigalu sëriñ Sidi Maxtaar ndax moo fi sëriñ Touba ci kaw suuf te moo ko jox ndigal mu ciy liggéey ànd ceeg taalibe yi doon seen jëwriñ mu ngi sant ñëpp di tàmbali nuyoo bi ci niñ ko baaxoo di defee sëriñ Cheikh Bara Abdoul Ahad mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ bi di jël nuyoo boobu di ko ñaan mu jébbalam sëriñ Sidil Maxtaar ñu koy ñaanal suñu borom li ko ak wér li ko kàttan ca dool li ko fee yàggal ba mébét yi nga xam ne nii am na ko ak la nga xam ne moom la ko bëgg a àggaleel way juróom yi ko jiitu woon ak magam ñi ko jiitu woon yépp mu àggale ko ba àggale ko fu kawe njox ci ànd ko taalibe yépp loolu it ci biir ñi ci ñaanalaale mbokki mbokkam yi nga xam ne nii defuñ ko mbokk wante sëriñ lañ ko def ñoom ñëpp suñu borom dool leen kàttanal bañ mën a ànd ak moom liggéey bi ba mu àgg foo ko sëriñ fa mu soobee sëriñ bi ci lépp am na ngërëmu sëriñ Touba ci biir loolu di nuyu sous-préfet euh, liggéey bi nga xam ne moom lay àndal yaakaar naa buñ ko nuyoo nag lépp luy autorité bu jógee ci gouvernement bi ànd nañ ceeg ñoom ci biir liggéey boobu di def nuyu Mamadou Diokh mi nga xam ne nii moo fi teewal lépp lu aju ci hydraulique jaaree ko ci effort te wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñu ànd liggéey bu rafet ndax yaakaar naa bu ngeen déggee waxaan ji xam ne pas-pas la ak yéene la ñoom la ñu def fàtte lañ ko ñoom ñu ngi def defante nag ànd bi moo rafet te yaakaar naa ni ci dikkee ñoom moom Malick complété nañ ci biir kon Mamadou Dior nga santal ñu sa kilifa yëpp tàmbalee ko ci directeur général Lansana ba àgg ci sëñ Diène Faye ba ci àgg ci ministre de l'hydraulique Mansour Faye di leen wax ne leen tey lañu ñu gën a tàllal suñ coopération ak ñoom di sant xabaan mi nga xam ne nii moo fi teewal SENTER ca boobu léegi xam naa wax dëgg yàlla lépp luñ ci man def nañ ko am nañ satisfaction ci li nga xam ne moom lañ weesu yépp dañuy nag ay jullit yoo xam dañuy dogal dañuy nangu xabaan dañuy nangu dogalu suñ borom moo tax patience boobu ñu ko ca doon am sëñ Cheikh benn souci rek la ca doon am mooy ki nga xam ne moo am yenn liggéeyal Serigne Touba gis ne la mu doon liggéeyal Serigne Touba àgg na lool rek la ci amoon ca mu dëgtal ko ci noppu sëriñ Touba sëriñ Sidi Mokhtar ca loolu të àgg loolu wax dëgg yàlla moo doonoon suuseem rek ci biir lim daan soññee yépp kon ci biir loolu di jël yow boobu di ko jaarale ci soxna Assu moom Serigne Abdoulahi ak rakkam yu tedd yi nga xam ne ñoom la fi nekkal yépp ak mbokki taalibe yépp ngir ñu mën a gën a résumé am na sax loo xam ne xëy na temps bi moo ñuy xoj wante Serigne Cheikh bindoon na ñoo xam ne booba léegi diiru fukki at yi da koy ànd ak ñoom di ko liggéey kon niñ koy tënkee mooy dañuy wax ne que 2006 ba 2016 di fukki at Serigne Cheikh nee na képp koo xam ne nii tàmbalee ko Serigne Sidi Mokhtar bi nga xam ne mooy Serigne Touba ak njaboot bi xam ne ñoom la ko bokkal teg ci Serigne Mountakha Mbacké bi nga xam ne mooy président d'honneur Maa wa rahmati ca bañ tàmbalee ba léegi ñu koy ànd ci ay tegtal ci ay xalaat. ak njabootuk Serigne Touba gi nga xam ne nii boobaak léegi deñuñu di ko jàppale ci ay ñaan ci ay xalaat ci ak gunge ci ak soññee ba ñu agsi fii ñu agsi cant googu it ñu ciy booleet ñi nga xam ne nii biñ demee ba nga xam ne yëg nañ ne war nañoo sant yàlla ndax toog nañ du mat fukki ak liggéey war a présenter bilan am ñoo xam ne dañ cee taxaw ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nga am pas-pas ak yéene confiance boobu nga xam ne ni amaan nañ ko ci moom renouveler ko ci moom te ñëpp ñii di njabootu Serigne Touba moo xam ay taalibe lañ moo xam ci ruu la moo xam ci deret la ñoo ñëpp ñu ànd renouveler seen confiance ci moom jàppale ko yeesal ko loolu nee na mi ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di leen ci sant di leen ci gërëm di leen xamal ne moom de xam na ne taxul ngeen di jëf ndax dañ koo jiital mu doon jëwriñ ci yoon wi wante sëñ tubaab mi am fay gis na li ngeen def ca dana leen fay incha allah ca yaakaar naa comme ci fay doo ruus kon loolu lay ñaanal mbokki taalibe yëpp mbokki jullit yëpp sëriñ Cheikh Aliou nee na ci biir loolu day beral ak cant euh, dana ko beral chef de yi nga xam ne nii boobu ba léegi dañuy ànd ak ñoom taxaw ci kanamu askan yi dafa mel ne bu santee chef de yi ànd na ak askan wi yëpp ñu ànd ci liggéey ndax ñooy joxe orientation yi ñooy soññee ci ñooy bunt bi nga xam ne ci la ñuy jaar pour li nga xam ne moom lay réglementé ci biir liggéey bi ñu mën caa àgg fi nga xam ne ñu mën caa àgg fii ñu ci àgg di santit kuréelu jaayante yëpp bu ne kuréelu jaayante yi fépp fu kuréel am rek ñun dañ jàpp ne lépp kuréelu jaayante la kuréel bu taxaw moo xam kuréelu professionnel lañ dañoo yor seenub liggéey kon nii ñu ko waxee léegi-léegi suñ mbokku silmaxa yi ak ñeneen ñeneen ak kuréelu jaayante yépp jàppale gi yëg na ko ndax Serigne Cheikh dafa ne moom xam na ni dafa yor ndigal ca ndigal li taalibe Serigne Touba yi la ko war a àndal kon bu ci agsee fii taalibee Serigne Touba ñoo ci farlu moo tax mu agsi fii mu agsi kon nag mu ngi leen gën a tàllal loxo di gën a fas yéene ànd ak yéen di leen di sant baax sëriñ Cheikh nee na ba tey mi ngi wëlbatiku di sant kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu Maawu Rahmati gi nga xam ne ñoo nekk ca liggéey ba ca bootu ci Malick Badiane mi nga xam ne mooy administrateur bi nee na mi ngi leen di beral cant ci di leen bàyyi ak sëriñ Touba ndax boobu ba léegi yokkatu leen amu leen guddi amu leen bëccëg amu leen naaj amu leen muy taw amu leen ker lépp jox ngeen ko sëriñ Touba te biir na ne jox na jox ngeen ko sëriñ Touba kon nag loolu dana dana ko seereel Serigne Touba di santit ñi nga xam ne ci wàllu communication maanaam saa su nekk ji jël lox lool di ko teg ci loxol Mor Talla Fall mu jottali ko ñi ci yi ñëpp ci wàllu presse bi yëpp xam ne gis na jàppale gi ak ni nga xam noonu kenn ku nekk am nga ci yéene yaa ngi def effort ba liggéey bi agsi fii mu agsi kon ñoo ñëpp sant na leen di beral cantiit mbokki boppam yi nga xam ne ni ñooy kuréel gi nga xam ne nii ak beneen kuréel boo xam ne nii dañoo ànd ak moom saa su nekk nekk ci wetam di ko xalaatal di ko jëfal ñu mel ne sëñ Cheikh Bara Abdoulaat mi ak ñeneen ñu mel ne moom ci mbokk yi ci doon staff bi nga xam ne mooy comme bu ñu ko doon tuddee mooy comité consultatif bi mooy euh, bi nga xam ne ni ñoom ñoo koy jàppale saa su nekk di ànd ak moom ci soññante ci xalaat ci transformé euh, euh, séddale information yi ba nga xam ne kenn ku nekk dana ci jot ni mu ci war a jotee kon daf ne woon tey di sant nag di ñaanal ki nga xam ne dafa def ca bëggul ñu xam aw turam wante da koy ñaanal ñoom ñëpp kenn ku nekk dina ñaanal ki nga xam ne moo defar forage bi suñ borom dolli ko tawfeex dolli ko dimbali dolli barkeel ab liggéeyam ba mën a réaliser Serigne Touba yeneen ak yeneen ca nangul ko ko cam am ci ngërëmu Serigne Touba. di ñaanal ci biir loolit yaakaar naa sëñ Mor Talla Fa wax na ko joxe woon na ñaan gi muy alaaji Serigne Gueye ndax dafa am bunt boo xam ne da ko ubbi muy bunt bu am solo ca lam doon doon mag ci ay effort am la jël na ay kilomètres yu baree bari tëral ko ci Touba bari na ñoo xam ne buñ naanee ndox ndox àgg ca ñoom alaaj Serigne Gueye moomu moo ko kon nag bis bii taw nga tey moo taxoon mu ko doon sàkk kon na ko taalibe yépp ñaanal suñu borom xare ko àjjana ca barkeel gannaawam barkeel ak njabootam di xam ne ak njabootam ñoom ñëpp it ñu ngi leen di jaale alaaj Serigne Gueye di leen xam ne nii ñun jàpp nañ ni ñoom ñàkkuñu ñun ñoo ñàkk wante nag ñoom ñàkkuñu ndax am nañ ñu ca incha allahu rabbi ah buñ ko bokkee dox danañ xam ne nii am nañ maa war a xamati ndax ay gor yoo xam ne dañu nekk ci gannaaw toorub sëriñ Tuubaa bi rek di ci liggéey ñoom lañ ca dañ ci yokkat benn yoon kon daal sëriñ bi nee na ndax waxtu guddi na mi ngi sant mbooleem ko ci nekk ca tey ñu bëgg a inauguré daloo forage u rahmatul ahad bi nga xam ne nii dañ cee barkeelu ci Cheikh Abdoulahi Ahad ma nga xam ne moo sosoon fii bari loo xam ne xàllal na ko yoon wi ca yaakaar naa marqué na jeunesse su Sénégal yaakaar naa marqué na jeunesse su murid yi formaté na leen ba am na ci gëm-gëm gu baree bari ak yitte ju baree bari yoo xam ne ni bu ci amee bañ agsi fii moom la yaakaar naa kon ñu moom it ñu ko ñaanal suñ borom moom njabootu Cheikh Khadim googu nga xam ne jiitu na yëpp suñ borom dolli seen tawféex ca fa ñu nekk dolli yërmande ci seen njaboot gi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi cay lépp loo xam ne moom lañ naaloon tëral ko muy ay yoon yoo xam ne bëggoon njaboot gi jaar fi ñu jaar ca ba àgg ca fañ ca war a àgg sëñ bi daal nee na ak cant moom du weesu cant maante mi ngi sant ñëpp bàyyilu kenn mboolem taalibe kenn ku nekk na nga ci jàppee lam ci yëg ak lam ci yëgul moom suñu borom yëg na ko Sëriñ Tuubaa yëg na ko te yaakaar naa ne kooku rek moo tax ñuy liggéey moom xam ne ne jëmmam ji taxul kenn di liggéey beneen bi ci des nag mi ngi wax mbokk yi ak taalibe yi ci nii ko sëñ Cheikh Bara Lahad nii ko Mor Talla Fall waxee ne leen mi ngi yeesalaat ak jaayanteem ak Sëriñ tubaa ci liggéey bii fas yéene du tekki laxasaaya mukk mukk mukk lu dul la Sëriñ bëgg da ko am ci lii ak ci leneen lu munti doon ci Touba di ci invité yi mbokk yépp it bépp branche ak bépp gox boo xam ne kenn nekk na fi yor fa liggéeyam Serigne Touba nga jàppee noonu ngir seeni Touba la nga xam ne moom la am ci boromam ñun mënuñ cee feeñal dara de wante nag mën nañ ko rafetal ba ñeneen mën cee jariñu ci ñun ca loolu yaakaar na danañu julan jariñ kon nag ndono loola la bëgg nañ ko sàmm téye ko doxal ko nañ ko war a doxalee ba mu àgg war a àgg. lépp nag ci garam sëñ Sidi sëñ Sidi Maxtaar sëriñ Touba sëñ Sidi Maxtaar mi nga xam ne moo fi sëriñ Touba ci kaw suuf nee na laal mi ngi sant ñëpp di wax ne que bis ni ko tey fas nañoo yéene daloo rahmatul ahad bi yaakaar na impact bi nga xam ne moom la doon moom la war a impacté yaa ñi fi jiitu yëpp jaar nañ ci ci ay remerciement ci ay sant am na ci yoo xam ne ci presse bi danañ ko ci jéem a jaarale ba mu gën a yaatu ndax lii rek luy mandargaal liggéey bi la wan leen fi liggéey bi solo di invité ñëpp nag. di leen wax ne dafa mel ni weesu nañ fukki at wante yi dafa am lu ñu dëgmal ñun jàpp nañ ne li ñu xaar li ñuy xaar ci kanam moo ëpp li ñu li ñu weesu ci gannaaw donte nit ñi am na ñu ne rafet na donte am na ñu rafetu ñu ne rafetul loola suñ yoon nekku ci Serigne Touba la ñuy liggéeyal bu Serigne Touba sante rek ñun liñ bëgg am nañ ko wante kon nag nañ xam ne liñ dëgmal ci suñ kanam ah moo ëpp fopp li nga xam ne moom la weesu ca Serigne Touba dong lañ koy defal te ñun ñëpp kenn ku ci nekk da gàddaay fekki Serigne Touba. bu ñu lay tudd di tudd sëriñ bi sax ña la mel ni dañoo gàddaay fekk sëriñ tubaa ba sëriñ Touba def ci ñoom lañ la lan def ci ñoom ba tax ñu ne xool nañ la xoole kon nañ jël lépp fas yéene delluwaat ko sëriñ tubaa fas yéene li ci kanam gën a rafet li nga xam ne moo nekk ci gannaaw nga xam ne ni moom lañ weesoo mi ngi ci woo ñëpp kenn ku nekk nag xam nga nanga nga ci jàppee ba ndigalul sëriñ Touba mën a àgg fa ko bëggee kenn ku nekk xam nga na nga ci àggee dam waxoon démb ak bër bërki démb ne forcé wuñ ci kenn sañu euh, maanaam gëta nuñ kenn ci lenn dañuy woote yi liggéeyu sëñ tubaa wante lu mu ci am nag ak lu mu ci xàll ngir liggéeyu sëñ tubaa di ci séntu ngërëm sëñ tubaa yéene na ko taalibee sëriñ tubaa yëpp ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn di leen ñaan lii ñu def ko ay yoon yoon yoon ca it saa su nekk muy doon di doon mbégteeg sëriñ Sidi Mokhtar sëriñ tubaa di doon mbégteeg njabootu Cheikhul Khadim gi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñëpp sa njaboot ñu ngi lay sant bu baax yéen ñi ñu dalal ci Madiyana di xam ne ni xam ne lii yitte la moo tax wax nga ma léegi ne fa nga jógee sori na wante nag xam nañ Serigne Cheikh Ahmad moom Serigne Souhaïbou li nga xam ne gëdd gi nga xam ne moom la ko jox liggéey bi ndax ànd nañ fa ay yoon yoo xam ne nii bu fa Serigne Cheikh demee ci ay soññee ak i ak i ñaan rek lay nekk cay lépp loo xam ne nii awale yoon liggéey bi mag ñu cay soññi mag ñu cay gàttandu kon nag dañuy ñaan rek naan yàlla nañu Serigne bi gàttandul boppam ba mën a am ngërëmu Serigne Touba ñun ñëpp ba xam ne nii ndam li moom du ndamul Serigne Cheikh du ndamul kenn ndamul Serigne Touba rek la kon nag ñi ngi sant bu baax jërëjëfe Cheikhul Khadim jërëjëfe Cheikhul Khadim jërëjëfe Cheikhul Khadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim dinaa ko sante suñu borom noo ngi julli ci yonent bi Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di sant Sëriñ Tuba suñu yaakaar tey ëllëg di ñaan suñ si di Moxtaar suñu borom yàggal ko fi ba naal yu mu naal mu àggale ko nu ànd ko ak moom te lépp dëppoo ak ngërëmal Sëriñ Tuba Euh, sëriñ Moustapha Moussa li wax léegi doy na ma ci lépp ndax bu dul ci ndox mi itam mën na maa wax ne sama rakk bi topp ci man la yoo xam ne euh, lépp lu ma soxla suba ak ngoon ma nga ci sama yitte ci lu bokk la ndox mi itam euh, sëriñ Cheikh Bara itam li ñu waroon a wax wax na ko ndax bu amoon jëmm joo xam ne dama ci teg baaraam te mat na ko sëkk wala ne kii Serigne Touba moo ne ci moom Serigne Touba ne ci xolom mu koy waxe di ko doxe di ko jëfe ci moom laay teg sama baraam kon te lépp lu nu si def ci Maou Rahmati noo ko ànd ak moom kon noo sant préfet ñi ngay sant bu baax si Modou Mbacke di sant joox waaye juróoli di sant soxna yu tedd yi di soxna astu ak euh, soxna ami siba ak euh, soxna yi fi daal euh, lii nag day ñaan goo xam ne sëriñ bi moo ma ko joxoon ne naa ko joxase ak ndox mi euh, moo tax taxoon na bëgg ko wane def leen ci seere ne forage bi yow mii nga xam ne yaa ko joxe te sëriñ Touba nekk ci sa xol bi bu wér a te bëggoo ko wax sa tur ñaan naa la sarxu naa la ab naa la wax naa la lu ne pour nga wax ma sa tur pour ma mën a am ndigalal wax sa tur nga ne ma loolu ta nekk ma xam ne kon sa xol bii sëñ Tuubaa la ci ne na nga xam ne kon xaadimul Moustapha mi nga xam ne che sëñ Cheikh euh, Matilay moo ko fi représenté di xaadimu rasul te mat ko sëkk mi ngi lay sant bu baax ci jëf ji nga jëf ñaareel ba moo di euh, beneen bi dafa am ku ñuy wax euh, Samba Diop nga xam ne ci silmaxa yi la nekk ñoom suñ mënee am wax dëgg yàlla taxawaayu man ca def dara te am ñoo xam ne yàlla mën na leen gan ci dëkk bi wax dëgg yàlla bu ñu royee ci ñoom la Sëriñ Tuubaa ñaanoon ci dëkk bi dana mën a fexe jaar ci ñun moo di waxuma sax ndox mi waaye bu ñëpp booloo woon weer wu ne kenn ku ne génnee dara ngir Sëriñ Tuubaa ñu wut ay nit yu wér ñoo xam ne ak groupe la ñu wér am nañ ci dëkk bi nga xam ne dañ koy waxtaan weer wu ne ñu am lu leen jox loola waxuma li am ci dëkk bi nga xam ne mat na 2 millions waxuma ndox mi sax waaye mën nañoo defar lamp yi mën nañoo defar goudron yi wala ñu fa defar mën a defar ay banque wala ñu fa mën a defar énergie bu ñuy jaayaat même Senelec lépp lu Serigne Touba bëgg war nañ ko mën a mën a defar dëkkam bi ba mu raw Makkatal Mukarrama wala Madinatul Munawwara loolu lu war a mën nekk la ndax jàpp naa ne benn fifteen ku ko njublan njële ko ci Serigne Touba njublan ko ko yaakaar naa ne kenn du la mën a ramm yow na bu wér wér wér te loolu mooy li am ndax Serigne Touba li ko dëkk bi jaral dafa bari ak li mu sonal sa ci li mu sonn ngir dëkk bi ak ñu ko fi dëkkal wax dëgg yàlla ak lim leen ñaanal képp ku ko war a delloo njukkal rek war ngaa xalaat foofu ci matlabul fawse yi boobu ñu réaliser wu te mu mën a jaare ci suñuy loxo tokkër bu barkeel lañ nekk muy bu Serigne Chouaïbou Mbacké amoon nañ gis-gis gis nga ko Serigne Abdou Lahad itam nekk visionnaire nga xam ne gis-gisam tey jii gis nga ko ci biir digg dëkk bi def fi loo xam ne booba yombul nga xam ne lu la neex def ko fi ba université bii sëñ Cheikh Bara wax ñu ngi ko fi wàcc def nga xam ne lu la neex def fi bu la neexee def fi marché bu la neexee def fi foire bu la neexee noonu fi ñuy def fi forage ka gisoon loolu su borom waroon ko ko bokk ñooñu dañoo xam njàngalem Serigne Touba xam kan mooy Serigne xam ko dara man nar ma war a jël kaddu waaye ci occasion wu jàng jàng yi nga xam ne ñaan li ñu war a defal Serigne Abdoulaye nu leen di moo tax ma jël kaddu di ko delloo njukkal di leen xamal ne lépp lu ma am jëmu jooju ndax mooma ma may ma ma jàngi ma may itam ma dem hydraulique ba bokk ci programme d'urgence de l'hydraulique yaakaar naa ne jox xam nga loolu nga xam ne ñeenti téeméeri forage la woon ci Sénégal ma liggéey fa fukki at lu ma war a am ma amee ko fa kon kooku mënu ko fay mukk ci àddina ma dellu si euh, Serigne Saliou jaaral foofu Cheikh Mamadou Lamine Bara jaar fa ba ci sëñ Sidi Mokhtar mi ñeesalaat kon ñu mel noonu sargal leen ak njukkal leen ak sant leen yéen ñii nga xam ne yéen a jàpp ci njàlbeen nga ba léegi ci Maou ak ñi ca bëgg a ak ña làqu ca seeni gox seeni xel ak seeni xol Serigne Touba nekk ca nelaw waxtu wu ne Serigne ca nekk moo tax ma jëlaat kaddu ngir delloo leen njukkal sargal leen kon yal na yàlla sàmm Sénégal sàmm njaboot Serigne Touba sàmm ummat islamiyya bi yëpp bi jaahi saytul wujud ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala euh, bokk jullit yi bokk taal bi ginnaaw bu ñu dégloo waxtaan yu am solo yooyu nag gis ngeen inauguration bi ubbiteg forage gi kilifa yëpp teew euh, ñu ànd ak yéen ci ubbite gi euh, naka noonu nag danañ sant bokk yi fa teewoon yëpp di ñaanal Serigne Cheikh Aliou di ñaan ak njabootuk Serigne Touba gi fi teewoon yëpp di ñaan képp koo xamante ne bii rek murit nga wala ngay jullit nga gën a jàpp ci ndoxam Touba ndax am na ci loo xam ne Touba rek la am dëkk cib dëkk jëfandikoo ndox mi te doo ko fay mel na ni àdduna ba mu daj Touba rek lañ xam ci dëkk bu koy def kon ñi nga xamante ni bi ñoo taxaw liggéey boobu ci ndigalal Serigne Sidi Muxtaar ñi ngi ñaan suñu borom kàttan na leen ba lépp luñ ci yéene suñu borom defal leen ci lu kawe seen njot ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Serigne Abdou Baaxe ja mi nga xamante ni moo ñu jëlee li woon ubbiteeg forage bi di sant Serigne Moustapha Ndiaye ak képp koo xamante ne bii yaa ngi safoo Istikhama TV ki nekkoon ci micro bi nag seen mbokk seen xarit Murid Mbay wasalaamaaleykum aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.